jërëgeen jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi ci bisu xasaayat bi nga xamante ni mooy daayira xasaayat ñu ngi koy amal fii ci Jurbel ñu taxaw ak ñu Cheikh mu doon ci membre fondateur liggéey bi nga xamante ni moom mooy liggéeyu xasaay ji fii fii ci diwaanu Jurbel ñu fas yéene ko dékk suñu micro rek mu leeral ñu tuuti ci tàmbali liggéey bi nga xamante ni amaan euh, daayira xasaayat bi amal nañ ko fii ci Jurbel mu doon liggéey bu ñëpp teg seen bët mu doon liggéey bu sell boo xamante ni ku fi ñëw rek dina xam ne daayira bi kat bëri na amaana fu wér lañ tënku foo xamante ni tey looloo leen may lii ndax ngeen dooree ba egsi fii tey jii. Ah, jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi comme ni nga ko waxee rek daayira bi eh, mën na ni mbooloo mi ngi sosu 2008. di ko sababoon mooy eh, eh, dafa amoon jenn daara joo xam ne ñu woon ci daayira bi xaw a am ay yëngu-yëngu ñaari daayira ci dëkk bi dem fa. Euh, di defaree loolu bi ñaari daayira yi demee ak daara jan fekk mooy ñett buñ defaree ba ak defaroo am ci la xalaat yi judd ni ah lii ne comme ñetti daayira lan te ñëw nañ fi defaree nañ ko daal di sos mu doon am mbooloo nga xam ni defaree moo moo jur tey lii di loolu amee muy 2008 ñu defaree ñoom ñu tàmbalee dox ñu tàmbalee nag di dajale njaarim ku yëngu ci xasida wala xasida ñor la moo xam nga di kuréel ngay rajaskat ngay kuy durus wala koo xam ne xas da yitteel la ñu tàmbalee di dajale di di wër di ci waxtaan di waxtaan di waxtaan ba lëkkale leen nga xam ne mu jën na toll ci fanweer rek nangam ak i mbooloo yoo xam ne mm, man bokk ni ci waaye saa bu jugee rek ñu ànd ko ñun bi loolu amee nag ñu xool ni nag comme mbooloo lan moo xam ne ci xasida la ñuy yëngu war na noo jàpp benn bis boo xam ne dañ koy delloo njukkee xasida yi ndax euh, nga may ñu leeral foofu li tax ñuy delloo ci kan xasida yi léeg nga déglu ñu ne axlu xasida ñi ñu bëri jàpp ni xasida rek mooy si yitte defe ni dañoo ginnaawal leneen waaye day mbooloo moo xam ne ñu ci ëpp ay dongay nasaraan lan la ñoo xam ne dogalu ñu dem daara ñu formé ay mbooloo di ferante ijji ci seen biir ba mën a jàng xasida waaye bëri na ñoo xam ne tey ci xasida lañ joggi ba man di jàng alxuraan ci xasida lañ joggi ba man di topp téere xam-xam yi ba xam-xam bu ni jaamoo seen borom mhm. ci xasida lañ topp ba mën a samp ay barab yoo xam ne léegi ay daaraa nga fa mhm. ñuy jàngale ko di yar mhm. kon defe naa suñu borom dana gërëm ci nit ki koo xam ne li la may li tax yàlla gërëm ci yow rek loolee nga jàpp ko moo tax ñu jàpp ko ñu naan axlu xasida waaye firiwul ni danooy taxaw ci xasida kese waaye nag ci biir yëngu boobu ñu ngi ko xasida ci lañu xasida dimbalee ba lépp lu yàlla bëgg xemmeem ko rek ñu mën caa ne loolee nag lan dox ñu ba ndee ba 2009 ñu ne nag lan taxawal bisub xasaayit ci lan wooloo mbooloo mépp jamono yi ñoo ngi ñaan suñ baara yàlla na yàlla yokk ay leeram booba suñ suñ baaraa ngi fi ñu waxtaan ak moom mu rafetlu ko lool boole ñu jëriñu jaaree mooy suñ Muntaxa sëñ rafet rafetlu ko ba pare jox ñu biir kër gi daan nit defu leen fa li ngeen fay def nit deful lu ko fa gën te fa seen ko ànd ak yéen soo leen demee ñama fa bàyyi nañ ko ànd ak yéen te foo soxla nañ leen ko ubbil kon defe naa fii ngeen nekk bu dul koor gi nit du fi agsi waaye bisu xas demee tax ñu koy ubbil nit ñi kon looloo mooy dox 2009 ban ko tàmbalee tamit ci lan ni ah xëy na buñ ko tàmbalee bëgg a tuddee ay kilifa man nga am ñoo fàtte ñii ni dëgg leen ci boolewul wala nga am ñoo jiital ñu ne ñee waroon a jiitu ñu xam ne comme lépp xasida la ñu ne édision bu ñu ñëwati dañ koy tuddee xasida ci leen def xasida émission bu njëkk bañ tuddee ko mu xaddamatul am daa muy 2009 dañ ci jugee ñu tuddee ko Sindiidi 2010 àgg ca 2011 tuddee ko Jawartu dem Madlabu Sifaay tufatu dem Iqra wa rabbukal akramu ba ci tey jii ci yaa Seydi bi yi ñu nga xam ne moom la tuddee édition 2017 bi muy xasida koo xam ne ku ne miin na ko ci diwaanu Nuuru Daarayni bi mu ànd ak Nuuru Daarayni ak Ahmadou Moniyan loolee tamit nu buñ ko ko tuddee danañ ko móol móol googu xëy na nit dana yaakaar ni xaalis lañ ci jublu naam buñ ko ci amee ci bis bi lañ koy delloo waaye lañ ciy yéene mooy xasida yi gën di tasaaroo nit ñi di ko gën di jàng te lu gën di tasaaroo ñu ko gën di jàng rek xéwal di am nga xam ne nit dana ca jaare mokkal ko nit jaare ca eh, tafsir ko mu leeral ko loo loo xam ne dana ko yokkaat pas-pas ci noonee la ñuy dem ànd ko kilifa yi nag saa suñ ko ñëwee tamit bis bi comme nan ko ko gisee tey jii gisal ngeen ko seen bopp ci seen édition 2017 bi ñëw nañ fépp dem ngeen ko alxuraan nañ ko ubbee mboolem luy daara ci ci ci njaareem yaba lépp ci daara yi amunoon ñëpp yabal nañ seen i dongo ñu ñëw jàng fi lim bu takku ci alxuraan bi tamit yéen a gis muy wëy ndax luy daayira ak daara ak mbooloo mu yëngu ci xasida yi ñëw nga ak sa say xasida ñuy durus di ko def nag addi Sëriñ Tuubaa waaye nag di ci ñaanal jullit yëpp waaye nag di ci jiital suñu xale bi Cheikh Sidi Mokhtar ak njaboot gi njaboot yëpp mu yàgg bi ci liggéey bi mu yéen a liggéey suñ Tuubaa mu àggale ko ci sagoom loole mooy liggéey bi ak boole tamit bennoo gi ndax ëxlu gi jur na bennoo ndax nit dana ci nekk ba fàggul nit ci lum jàpp ba man cee teral ak njabootam kon loolu day dellu ci la alxuraan bëggoon rek muy bennoo julli yi moom saabu bennoo rek li mu bëgg nañ ko am loolee nag ci lan sabab ba jullit yi ñuy jàppalante nit di ci taxawal dara gis ay nit ñu ci jël ku ne di ci dimbalante nga xam ne ba tey jii ci loole la ñuy dox di jàppalante di di dimbalante na ci ak taalibe mooy fexe doxee ni nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa bëggee loolu daal mooy objectif mbooloo mi te ñoo ngi yaatal ay liggéey ci gax yi gox yi ndax gox bu ne samp nañ fa daaree alxuraan wala daara yoo xam xam-xam lay jàngale wala daara yoo xam ne su mënta jàngale alxuraan tamit dimanche ak ba danañ fa dajal di feeral nit ñi ijji ban mën a nab ndabi ci seen diine loolu daal mooy mooy yëf jërë ngeen jëf mbokk yi mu doonoon euh, Serigne euh, Cheikh mu doon jëmm joo xamante ni jàmbaar la loolu gis ngeen naka noonu programme bi nga xamante ni moom la daayira xasaayit amoon di amal saa su nekk ci euh, seen doxalin mu doon loo xamante ni bépp murit bu ne mu tegu ci xasida yi rawatina ngay taxawal lu mel nii foofu nga war a teg sa tànk kon noonu leen la ñuy wéy ak yéen fas yéene war leen lépp loo xamante ni am na ci bis yi mbokk